Euh, religion et société diine ak jamono tey nag ñu amaat fi gan war a waxtaane loo xam ne dafa aju ci wàllu société waaye lu jiitu lool rek ñu leen di jégalu bu baax ci géj gise gi euh, nekkul loo xam ne lu aju ci suñu coobare la waaye di santaat yàlla gannaaw bi nga xam ne dellu si waat nañu ci plateau bi ci kàttanam ak mbaaxam di leen wax ne kon émission tey bi dafa xaw spécial ndax dañu am gan fii ñu war a waxtaane lépp loo xam ne aju na ci wàllu société wàllu jeunesse ak loo xam ne da koy jëmmale kanam ak lépp loo xam ne yitteel na jeunesse bi ni leen ko faral di waxee émission religion et société day jéem a dëppale diine ak dundiin ndax diine lan moo ko tax a jóg mooy dundiinu doomu aadama moo tax mu ñëw ndax damay faral di wax ne jullit boo xasee ne jullit la dafa am lu la tënk comme koo xam ne day liggéey ci société réglement intérieur moo la tënk ni tamit boo duggee ci diine am na ay règlement ay loo xam ne moo la tënk am loo foo xam ne waru fa dépassé ba tax ne kon liñ bëgg a wax foofu mooy lépp loo xam ne yaa ngi ciy dugg wala yaa ngi ciy génn ci sa wàllu diine rek ci sa wàllu dund danga cee war a sóoraale sa diine lan la ci wax ak lan la ci waxul euh, kon buñ tënkee loolu diine lépp daf ko war a concerné ci wàllu dundin motax ngeen di faral di gis lek lek euh, religion et société ñu ñew waxtaan ci walu société kese nga xamne dañuy xam ban taxaway la ci diina wara am lool motax tay ñu am fi gan gu am solo muy ko xamne du fi gan sax euh, ci ndax mos ngeen ko gis ci émission bi moy euh, ababakar ba di conférencier di panaf panafricaniste di ko xamne aussi day yëngu ci ay conférence conférencier la di jeune leader di ko hamne ku bari ay yëngu la ci lo xamne day jëmele askan kanam day jëmele jeunesse kanam di exemple tamit ci jeunesse bi kooku lañ fi dalal tey fasiyene waxtane ay point yu am solo euh, gannaaw bala ñi wax sommaire bi rek li wara waxtane ñu bayiko mu nuyo abou bakkar kon ñing lay nuyu ma ngi lay fay munir mhm. du nuyu téléspectateur Safina FM yëpp mhm. di euh, remercier waa Safina encore une fois. Mhm. te remerciement bi ci sa loxo. Mhm. ci invitation bi ndax fi douma fi gan. wax mhm. nga ñewon na fi et yakarna ni waxtan bi amuna na solo lool macha allah ba ñep apprécier ko. moo ñi ñewat donc euh, maa ngi remercier bu baax. di nuyuwaat ñep di sant ñep di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa abou bakkar nuyoo bi amna solo. comme ni nga ko waxee suñu première émission amoon na solo ñu bari apprécier nañ ko am na ku ne ma man émission bi dama koy seetaan di ko seetaanaat rek ndax solo su mu am kon macha allah loolu tamit ñu ngi la ciy gërëm bu baax di la ci sant di la gërëm bu baax la sant aussi ci sa disponibilité saa buñ la woowee rek nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw te ku ne xam na ne jamono xat te yow jot. Mm. ñu ngi la ciy gërëm bu baax di la ci sant di la wax ne kon loolu rëy na ci ñun lool. Mm. Euh, Aboubacar euh, yow da nga yor mouvement comme niñ ko xamee mouvement boo xam ne panafricaniste la mais teewul lépp loo xam ne aju na ci wàllu gox bi wàllu nu ñuy yoree gox bi daf leen yitteel niki noonu tamit da ngeen yëngu ci ay mbir yu ah, mbir yu wuute ci wàllu entrepreneuriat ak yu mel noonu mm-hmm. euh, ba tax na kon loolu mu mujjee wax ci lañuy ñuy commencé muy entrepreneur entrepreneuriat ak jeunesse mm-hmm. ban taxawaay la ci seen mouvement am

même temps président fondateur d'un mouvement international le mouvement international des jeunes panafricanistes mhm. si du mouvement comme nous le ko il rek a mhm. na points qui sont élaborés, il la a élaborer points na ay points yoo xam ne si yooyu la ñuy mhm. na civisme beaucoup na citoyenneté beaucoup de leadership beaucoup na entrepreneuriat parce que nous ni ñun au 21e siècle l'entrepreneuriat est la voie la plus rapide pour pour mën a am loo xam ne yaa ko moomal sa bopp. Mm. te dafa nekk lu am solo. Mm-hmm. ñu bëri dañuy naan ah dëkk bi doxul. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne mm-hmm. Sénégal nan la tënkuwee. ñëpp xam ne Afrique nan la tënkuwee. ñëpp secteur informel bi dafa xat. li tax mu xat bëri na. am na ñoo xam ne dañuy dépasser seen âge de retraite du ñu bëgg dem. am na ñoo xam ne dañuy nekk ci place. nit ku leen fa gën a yellool. Mm-hmm. war fa nekk duñ fa nekk. Mm-hmm. moo tax bëri na ay pàcc yoo xam ne jeunesse bi pour ñu am liggéey. Mm-hmm. dafa bëri. donc c'est un problème boo xam ne moo ngi fi et ça moo tax lu ñu gëm. mooy ut ay maître ut ay professeurs yoo xam ne dañuy jàng entrepreneuriat mhm. comme lu Rwanda di def mhm. sous l'ère pour Kagame mhm. ut ñoo xam ne day formation sur l'entrepreneuriat wax jeunesse bi nan la ñuy entreprendre ban yoon moo gën a gaaw pour entreprendre ak nan nga koy defee nan nga koy taxawee ba amal sa bopp et je pense que nit ki su amelee boppam loolu moo dàq foofu très bien ni nga tontoo question bi am na solo ñu la ciy gërëm mais entrepreneuriat comme ni nga waxee mooy yoon bu gën a gaaw pour euh, tekki ci jamono bi parce que bu ñu xoolee suñu système éducatif dama koy def sax sous forme de question système éducatif bi est-ce que nekkul système boo xam ne day former ay chômeurs day former ay pauvres ndax temps bi ngay def école euh, balaa ngay xam li nga war a def il faut nga dem ba am licence te boo amee licence li ngay doyloo rek mooy commencer di def ay stage euh, ba baa ngay am master te wóoru ndax da nga am sax liggéey bu wóor te su boobaa day fekk sa âge avancé léegi système boobu est-ce que waruñ koo xoolaat aussi par rapport ak ñun suñu dundin société waaw loolu moom dëgg la waaye mu Mounir loolu moom euh, faute bi du ma wax sax faute bi sa à dire que euh, balaa lu olof njaay di wax rek mm-hmm. balaa ngaa xam Mhm. xamadi ray la ba pare mhm. n'est-ce pas mhm. loolu peut-être que bu njëkk bi ñu njëkkoon ni jàll suñu génération génération bu njëkk jall avant ñun peut-être que ño am malchance boobu noonu waaye jeunes yi légui gis neen nu dëkk bi di doxé c'est pas parce que da nga am licence am bac tek yor yenn niveau d'étude que da nga am liggéey loolu nak ni mu war a yee mooy ñoo xam ne tey génnaguñu si cycle scolaire ñooñu à bas âge suñu amé yenn niveau yi war neen xam déjà lan lañu wara mëna def war neen mën xam déjà fan lañu wara mëna tek mën a manque parce que école bi moom allah kulli aali mhm. c'est-à-dire que système bi mhm. système boo xam ne la avant l'obtention de l'indépendance la moo fi ne cest dire que forcément il faut nga jàng moom nest pas moom moo ñu il faut nga jàng ba yeggal mhm. nest pas léegi nag nit ki soo amee yenn niveau yi nekk jeune am nekk classe de troisième et tout man de war ngaa xam ne man de su ma amee lii fii laa war a mën a teg sama tànk lii laa war a mën a teg sama tànk loo xam ne suma amul bi am bële. Mm. donc moi je dis que peut-être que amna lo xamné jall na. moy mm-hmm. suñu génération génération bu ñëk ci ñun. Mm-hmm. ñun ñoo am malchance bobu mais mm-hmm. warna na éveiller ñi nekk suñu ginnaaw suñu rakk yi. ñi xamné que c'est pas forcément que da nga am bac. am yenn niveau d'étude que da nga am liggéey motax ñom war neen mëna xam. à bas âge fan la ñuy teg seen war nañ mëna xam lan la wara def lan la wara mëna xam lan la ñu bëgg def inshallah très bien lool aussi xamna dafa laaj formation. pour ñu xam ñom

mun nga suivre benn formation dem ba am bac. Mhm. mais bi nga amee bac sax nga def beneen formation. Mhm. mais pour nga liggéey il faut da ngay dem ci entreprise ñu formé la encore. Mhm. wala sax nga génn di taxawal di chômer. loolu bu fekkee formé wuñ la xamal la lan mooy entreprendre entrepreneuriat formé wuñ la ci. su boobaa yow dafa mel ni euh, pauvre boo xam ne dañ laa maanaam chômeur buñ for buñ kii rek. buñ créé ay chômeurs yoo xam ne état moo leen créé. léegi état bu xooloon bu xoolaatoon système bi nga xam ne day dugal entrepreneuriat. Mhm. nga xam ne da koy teel dugal ci école bi. exactement comme ni nga ko waxee su boobaa yaakaar naa mhm. solution dana dana am. exactement kon jërëjëf ci ni nga tontoo question bi Aboubacar. Mhm. léegi euh, ñu ñëw kon ci seen mouvement bi. wax nga ne dangeen di yëngu ci wàllu leadership wàllu entrepreneuriat wàllu civisme ak yu mel noonu. léegi yan action ngeen mené récemment. Mm-hmm. waaw euh, action yi ñu mené récemment bokk na ci journée de nettoyage. Mm-hmm. n'est-ce pas Beaucoup na ci journée set setal Beaucoup na ci journée de don de sang. Mm-hmm. n'est-ce pas Beaucoup neen en partenariat ak mouvement yu bari. désherbage au cimetière Dayof. ndax euh, gëm nañ ne ce sont des actes de citoyenneté yo, xam ne war nañ ko mën poser. bokk aussi ci conférence. bu ñu defoon au à Ziguinchor. Mhm. bokk na si nemmeeku bu ñu demoon nemmeeku waa Matam. Mhm. le jeunes de maatam mhm. pour xool nan la ñuy fay tegee cellule. auparavant defoon nañ conférence. Ouagadougou au Burkina Faso. defoon nañ conférence aussi Côte d'Ivoire. ñoo ngi waaj yeneen conférence incha allah si yeneen dëkk si sous région bi. macha allah incha allah war nañ aussi dem Saint-Louis. nest pas. parce que dafa bokk si lo xamné comme comme mouvement international Il wax. Mhm. Mhm. mais il faut les déplacer pour aussi inciter les autres jeunes. Mhm. à se conscientiser et les inciter aussi au travail et à l'amour du travail bien fait très bien loolu am sank sànq aussi yak ngi may wax war na am ben conférence bo wara a organiser les Ziguinchor. exactement le 3 octobre exactement pour mhm. le 3 octobre mom ce mhm. sont les jeunes ben association bi ni wax MSAC. Mhm. bu euh, nek au niveau de Ziguinchor. ce sont des jeunes Ziguinchorois qui se sont réunis créer ben association. bu ni wax des jeunes visionnaires. Mhm. Donc, nous avons organisé conférence sur mhm. les défis de la jeunesse pour le développement de leur localité. Mhm. Donc, nous avons invité journée autorités solo et invité autorités. Parrainer parce que l'une d'entre il faut go parrainer il faut ñu jeunes qui go xamné mom lañuy suivre exemple marque de considération remercier donc en même temps tenir panel le 3 centre culturel bu Ziguinchor. macha allah loolu dana am solo lool Aboubacar. Mm-hmm. Mm-hmm. ba qui eh, ci un mouvement bi. Mm-hmm. yéen seeni financement une source de financement. bu que question de du la déranger. non pas du tout. c'est une source de financement fan lay jógee. waaw xam ça dépense activité ñuy parce que activité de ñuy parce que nous n'y may nañu que. Euh, ñu am euh, yenn mën naa wax ne yenn daraje yi si si envers les autorités mhm. wala yenn si autorités yi mhm. ñoo xam ne daal wax dëgg yàlla mhm. mm, dañ noo jox xel ak bopp bu baax a baax a baax ba activité bu ñuy def rek day am koo xam ne moom leen koy jagteel day am koo xam ne moom leen koy parrainer nest pas euh, nous pour nous ñu. Mhm. donc nous tour parce que même mhm. tour dañuy politique. nous nous nous nous mouvement non lucratif nous mhm. boo peut-être des politiques. mais pas politique politicienne. parce que la politique comme je l'ai dit c'est de bien gérer la cité. selon selon la définition étymologique donc euh, si la ñuy nous nous tax. parce que ñun mhm. nous sommes des jeunes yoo xam ne war nañ mënoon nañ def leneen. Mhm. mais revenir pour liggéeyal gox bi je pense que yéen lay yombalal. Mhm. donc ñoom ñoo ñuy dimbali. ak suñuy partenaires macha allah. xam ne saa yu ñuy toog rek ñooy xam fan la ñuy amee partenaire lan la ñuy wutee partenaires mm-hmm. ñu bëri ay sociétés yu bëri ay mm-hmm. partenaires lañu. Mm-hmm. donc euh, yooyu yëpp la ñuy dajale daal mu nekk suñuy source de financement. ñuy mën di organiser suñuy activité suñuy voyager di jënd suñuy billet d' avion. billet ay hôtel. n' pas logement hôtel yeeg yooyu noonu yëpp. donc fa lay jógee daal.

su ma du politique politicienne. Mhm. maanaam euh, mouvement bi mom organisation la boo xamné mhm. lu ko yitel moy le développement de notre localité. Mhm. le développement de notre pays. le développement de notre continent. donc on mène des activités citoyennes. n'est-ce pas tu organises panel des conférences et tout et tout mais nak en dehors mouvement bi ku si nekk war nga mën a am foo far am na ñoo xam ne parti bii lañ far am na ñoo xam ne kii la àndal am na ñoo xam ne kii la ñu àndal mhm. waaye soo nekkee si biir mouvement bi wala suñu duggee si biir mouvement bi mhm. yooyu da ngay jël posture mhm. xam ne Afrique moo ñu tax a jóg Sénégal moo ñu tax a jóg euh, yi ku si nekk war nga mën a demal man war naa mën a ànd koo xam ne tey sama vice président du ànd ak moom loolu amul benn problème ku si nekk rek ak ki ngay àndal ak ku si nekk ak ki ngay gisal n'est-ce donc euh, mouvement bi mom mhm. bokul ci local yi. Mhm. te euh, du and ak kenn ci local yi. Mhm. inshallah très bien du and ak kenn ci local yi mais euh, pour nit ñi bindu dem voter ji comme devoir citoyen la. exactement te mouvement bi mouvement mouvement de citoyen la aussi. dëgg la léegi loolu ban taxaway ngeen ci amone pour inciter jeunes yi ñu dem bindu ci donte sax légui date bi passé na. waaw lool mom wax dëgg yàlla defon nañ ay communiqué yu am solo. ndax wax rek lu ñu mën. n'est-ce pas. defoon nañ ay communiqué yu am solo. jàllale ko si mhm. à travers nos à travers les réseaux sociaux. Mhm. ne euh, que tey euh, vote c'est un mhm. devoir citoyen. nit ki même su fekkee voté loo kenn sax. nga def defi bulletin nul sax. c'est c'est loolu voté la. mais n'empêche na nga jël def sa devoir citoyen. ndax euh, ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. n'est-ce te kuñ fiy teg rek war nañ ko mën a xool. n'est-ce donc euh, loolu defoon nañ ci ay communiqué yom solo inciter les jeunes ñu dem bindu ji mhm. pour préparer ou dem voter ji mhm. parce que ñun ñoy avenir de dëkk bi mhm. d'ores et déjà war nañ mën jël suñu précaution très bien euh, bu loolu weesoo aussi nee nga mouvement bi du ànd ak kenn ci local yi ta mouvement bi gis nañ né mouvement bu mag la am nañu ci bootu ay jeunes yu bari est-ce que bu ngeen jëlone position comme yeen lu doxal gox bi mo leen euh, mo leen yitteel ngeen gis ne kii bu ngeen ko fi tegee dana liggéey dana jéemale gox bi kanam ngeen ànd ak moom est-ce que loolu nekkul woon loo xam ne dana am solo. waaw euh, xam nga mouvement bi sa à dire que c'est pas ñu nekk Grand Yoff rek fi dëkk wala Scat Urbam. Hmm. am na ñoo xam ne ñoo ngi bët. Hmm. Saint-Louis si hmm. mouvement bi leen bokk ñii Ziguinchor ñii Thiès ñii maatam n'est-ce pas ñii ñoo ngi Côte d'Ivoire ñii Burkina Faso ñu ñëpp si mouvement bi leen bokk moo tax mouvement bi en tant que tel. mouvement international des jeunes panafricanistes bokkul si benn maanaam àndul la kenn. Mhm. n'est-ce mouvement comme ni ma la ko waxee rek. Mhm. mais nag mhm. pour les jeunes parce que amaat nañ fii beneen mbootaay bu ñuy wax l'association des jeunes euh, de l'ASCAT URBAM peut-être que boobu noonu. ah suñ si yeggee wala. à l'approche des échéances incha allah mm-hmm. dinañ xam ne ak kii de suñu àndale ak moom mm-hmm. wax dëgg yàlla dina jëmale gox gi kanam mm-hmm. parce que ñun loolu la ñuy wër n'est-ce pas yàlla dogal nañu ñu bëri seet si ñu wax dëgg yàlla tey ñuy wax les candidats potentiels pour la mairie de Grand Yoff ñoom ñëpp toog neen waxtaan ak ñoom mhm. mais nag bés bu si yeggee mhm. wala bés bu jegee incha allah dinañ am mhm. benn réunion ci cadre association bi ngeen toog ak ñoom ci cadre association n'est-ce pas man personnellement man personnellement non seulement ci cadre association mais man personnellement ku si nekk am naa ak yow waxtaan n'est-ce pas parce que loolu moom yàlla moo koy def si nit n'est-ce ba si récemment Khalifa Sall donc euh, toogoon ku ñuy wax maire Waré Diaw maman Waré Diaw moo ma woowoon mhm. présenté ma ko mhm. ñu amal benn waxtaan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgg neen doon mhm. candidat pour la mairie de Grand Yoff donc euh, ñoom ñëpp déglu nañ leen te wax nañ leen lan la ñuy xaar pour Grand Yoff parce que il est temps Grand Yoff Scat Urbam am beneen xar kanam donc euh, bés buñ si yeggee daal wala bés bu jegee dinañ tabb suñu candidat ne ah ñun di kii la ñu àndal incha allah très bien am na solo association boobu yaa ko jiite wala waaw maa ko maa ko jiite xam nga mm. euh, comme ni ñuy wax rek gox bu si nekk rek yàlla day tabb ay leader daal mm. te nekkul loo xam ne dañ ko forcé mm. jeunes yi si boppam ñoom ñoo ñëw teg ma seen kanam ne ma daal ñu dëgg yàlla ñun gis neen li ngay def mm-hmm. macha allah mm-hmm. donc yow la ñuy jiital mm-hmm. foo ñu euh, foo foo teg sa tànk rek ñu teg fa suñu tànk parce que xam nañ ne gëm nañ ne doo dugg si loo xam ne daf ñuy lor n'est-ce pas parce que ñun bu ñuy ñun ñoo njëkk organiser don la sax au niveau des Scat Urbam ñoo njëkk organiser journée de nettoyage ak yeneen ak yeneen n'est-ce pas tey amoon neen fa benn mouvement wala benn association bu mag ñuy wax Scat Urbam ëpp Mhm. donc c'est euh, une biir ñoo ko njëkk créé mhm. n'est-ce pas pour inciter les jeunes mhm. à travailler pour le développement de leur pays donc aussi loolu yëpp point yooyu yëpp la ñu tabee teg ñu seen kanam wax dëgg yàlla lépp li ñuy organiser rek ñooy jiitu macha donc di leen ci sant bu baax ci confiance boobu te gëm nañ ne incha allah duñu trahir seen confiance très bien loolu am na solo trop euh, am na solo ci gox boo fa nekkee li olof naan euh, dëkk ci gox bi xaw jëriñ gox bi moo ko gën Euh, am na solo kon ñu ngi leen di ci encouragé bu baax beneen bi mooy euh, wàllu élection locale yi ba léegi. Mm-hmm. Euh, ban taxawaay nga gis ne jeunes yi am nañ ko ci parce que nee nga waxtaan nga ak ñi nga xam ne bëgg nañoo présenté wu. ci biir ñooñu yow est-ce que gis nga ci ne jeunes yi présent nañ ci ci ci candidat yi yooyu nga xam ne ñoo présenté wu wala. exactement. Mm-hmm. c'est-à-dire que man ren seetlu bu ma si am mooy wax dëgg yàlla jeunes yi. bëgg nañ jël les choses en main quand mhm. parce que tey localité boo dem. Mhm. surtout au niveau de Grand Yoff ñu bëgg a ñu bëgg a postuler mhm. pour la mairie ñu si bëri ay jeunes la ñu. te euh, gëm ne que ñoo ngi commencé yeewu daal. Mhm. waaw parce que xam nañ ne ab mhm. dans un pays où la population est majoritairement jeune. Mhm. xam nañ ne jeunesse bi. wala jeunes yi ñoo mën a doxal réew mi. donc ñu ñu seet si ñu bëri. wax dëgg yàlla ñu si bëri. ay jeunes la ñu moom. te pare nañu pour jël mairie Grand Yoff te ay jeunes la ñu wax dëgg yàlla. macha allah pour yow sa xalaat ak euh, ci turu mouvement bi aussi. parce que dernièrement waxoon nga ne ñu ne. bëgg ngeen yéen mouvement bi képp koo xam ne dana yor mairie bi aussi mhm. da bëgg naa yor mairie bi mu jaar ci yéen mhm. euh, léegi euh, nan nga gisee maanaam euh, ba ku bëgg yor maire bi ku nekk war na jaar ci yéen yow gis nga ne war nañ changer maire wala li fi nekkoon ba léegi baax na. non fi nekkoon ba léegi moom baaxul moom. Hmm. dëgg yàlla lu fi nekkoon ba léegi su baaxoon. Hmm. duñ si sonn. dëgg yàlla lu fi nekkoon moom su baaxoon. Mm. duñ ci sonn. déedéet non sérieusement lu fi nekkoon su baaxoon kay duñ ci sonn. Mm. lu fi nekk baaxul te il est temps vraiment dafa catastrophe. Mm. bilan bi c' est c' est un bilan catastrophique. man je dis que tey soo duggee Grand Yoff wala soo nee Grand Yoff laa dëkk. da ngay ruus parce que dañ lay xoolee leneen. Mm-hmm. maanaam point yi tax. mu mm-hmm. catastrophique dafa bëri. Mm-hmm. insécurité bi. Mm-hmm. su tawee gis nga tali bi ni muy mel. Euh, tey incivisme bi. boo balaa ngay egsi fii rek moom da ngay sonn. non da ngay sonn. bi. n'est-ce ak yeneen ak yeneen yu wane ne wax dëgg yàlla. soo nee Grand Yoff laa dëkk nit ñi di loxoo la te tey man waruma woon gëm loolu parce que Grand Yoff tey moo ngi au cœur de ndakaar tey Grand Yoff dafa waroon bokk ci commune yoo xam ne ñooy gën a doxal. Grand Yoff dafa waroon bokk ci commune yoo xam ne ñoo gën a neex. mais tey. lu gis mooy les choses vont de mal en pis. Mm-hmm. parce que ni tax parce que nous n'avons pas de bons dirigeants. loolu moo am. te mm-hmm. man personnellement je l'ai dit au maire. Mm-hmm. waxtaan nañ bureau ma ne ko wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. amuñu maire. c'est ce que je l'ai dit te su taxawaatoon loolu laa koy wax. te loolu moo am. parce que ñun fii la ñu juddoo. fii la ñu màggee fii mais lu am Grand Yoff. musu fay am wala boog ñun de musuñu koo gis. insécurité bi ñaata yoon la presse bi def écho ci insécurité bi au niveau de Grand Yoff mhm. ñaata nit dañu rey au mhm. niveau de Grand Yoff mhm. tey xoola Grand Yoff incivisme bu fi am xoola Grand Yoff anarchie bu fi am xoola Grand Yoff tey su tawee ni muy mel tali bi doo mën a jaar ñiy ibbi seen fonce et cetera et cetera te maire bi nekk la mairie nekk tey si digg Grand Yoff est-ce que compétence su mairie la assainissement non assainissement c'est-à-dire que. Mhm. ne nañ bañ parce que mairie lu compétence mhm. mais manam nga tek ay djégo yo xamné wax deug Yalla mhm. day wonné naka yow tek na ay n'est-ce pas wala dox nga Nous ay pas lu ci dess ñeneen ni mais ñun loolu ko. yow est-ce que gissone avec euh, l'acte 3 de la décentralisation. depuis Macky Sall ñëw. dafa bloquer yenn mairie parce que mhm. seen i compétence dañ leen limité. Mhm. ba tax na yenn maire yi bu ñu toogee. Mhm. ñoom niñ bëgg a liggéeyee duñ ko liggéeyee. no cest dire que euh, yooyu moom wax dëgg yàlla. man jàpp naa ni que euh, ce sont des discussions euh, yoo xam ne warul mën a jàll. à mon avis. parce que tey mairie Grand Yoff li muy dugal si si si ressource rek. mairie Grand Yoff li muy dugal si keesam. war neen si war a mën a liggéey benn liggéey boo xam ne même su fekkee Sall le président dafa am lu mu lay bloqué. wax dëgg yàlla ñu xam ne que yow def nga effort c'est-à-dire que nit ki soo defee dara am yenn effort yoo def ñu ngi teg seen bët. Mhm. dinañ ne ah kii de moo ngi def effort kii de moo ngi góorgóorlu. Mhm. mais sa à dire que rien rien rien ñun de au niveau de Scat au niveau de la Scat Urbam au niveau de Grand Yoff gisuñu loo xam ne wax dëgg yàlla maire bi def na ko lu ñu mën a dem njëriñ wala loo xam ne lii war neen mën a wax ne kii kii maire bi actuellement moo ko def amul mais nag soo toogee di excuser wu avec l'acte 3 trois de la décentralisation le président Macky Sall a ah, dafa dafa rajeunir suñu suñu ay pouvoir ba yenn affaires yi duñ ko mën def yooyu ce sont des excuses yoo xam ne warul mën mm-hmm. parce que gëm nous ne la table si gox nest ce pas jiital le au minimum le minimum rek le minimum c'est gox gi war nga ko mën a def war nga assurer sécurité population bi. Mm-hmm. war nga mettre dans de bonnes conditions. Mm-hmm. nest ce pas te ñun yooyu rek leen ko sant sant ñu ko donc euh, yooyu suñ ko gisul day xaw a doy waar moo tax euh, lu may wax rek mooy jeunes yi d'ores et déjà nañ jël seen matukaay xam ne que il est vraiment temps que les choses changent. am na solo xëy na tamit changement dana am parce que niñ ñu daan ni ñu doon falee maire ak léegi. comme léegi suffrage euh, direct lay doon. Mhm. xëy na loolu dana am changement ndax bu njëkk. Mhm. daawoo xam kan mooy nekk sa maire. exactement da ngay far kenn mu seet ku ko neex mu teg ko fa. dëgg la

bon beaucoup nous si projet dans l'avenir, mhm. Inch'Allah, mhm. je sais pas mais mhm. si ma nee beaucoup nous si projet. ñu bëri dañoo jàpp ne que moi, personnellement man maay bëgg présenter wu pour mairie Grave. Yoff. man amaana sax mën pas bañ présenter wu. mais tab bu keneen koo xam ne wax dëgg le moo ko gën a pour mu présenter wu. en tout cas man que je gëm. mooy c'est ce qu'on a def ko def. c'est-à-dire que nous sommes jeunes. nous allons nous auto-former. comme lu doon wax Cheikh Anta Diop lu mu doon wax. n'est-ce pas dem outil formation dem outil xam-xam bu doy mhm. dinañ incarné wu le rôle de leadership mhm. nek ay leader parce mhm. que quand on veut diriger une commune ba pare bëgg commune bi dem kanam non seulement da nga am esprit leadership da nga wara am esprit leadership nek un leader ba pare gëm sa gox bëgg sa gox dafa am solo n'est-ce pas donc euh, ñun jeune yu ñuy liggéey lépp dinañ leen tagg ci loolu tabb leen bu baax ci loolu formé leen ci baax ci loolu n'est-ce pas ñu xam nan la ñuy diriger nan la ñuy waxee nan la ñuy toogee n'est-ce pas. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, même su fekkee dundun sax dëgg yàlla ñi fait mm-hmm. keneen koo xam ne ko gën a yelloo ñu ko mu jël mairie bi waaye nag bokk na suñuy projet ñun suñu génération dans l' avenir kenn suñu yor mairie bi. très bien bala ñoo jàll ci question bi ci topp ñu ñu dugal rek kii wàllu vaccination yi gisoon nañ leen ngeen di ci yëngu. exactement loolu nan la demee woon. waaw euh, pour vaccination yi moom dañoo nekkoon en partenariat ak benn structure. Mhm. bu ñuy wax euh, Finova Asova. Mhm. dirigée par euh, mon ami et frère Amadou Diop. Mhm. donc benn organisation suisse suisse la. ay suisse ñoom ñoo ko créé. donc nekk si. Afrique mhm. c'est-à-dire que objectif c'était d'inciter la population à se vacciner. parce que nous savons que le meilleur moyen pour combattre le coronavirus. Mhm. c'était le vaccin. Mhm. donc nous euh, nous ñu incité la population pour le vacciner mais comme que la population était réticente. réticente donc euh, créé une structure une euh, association une organisation euh, comme genre assurance les donne mhm. n'est-ce pas mhm. mettre en place des vignettes d'assurance mhm. donc euh, si biir association bi regroupé na médecins regroupé na avocats ay infirmiers ay pharmaciens donc li ñu si jublu rek mooy tey soo des vignette d'assurance yi ni bind la bés boo vacciné ressentir des effets secondaires ñoom ñu jël en charge une structures structure sanitaire gratuitement comme genre assurance avec rek day ni nga Mm-hmm. wala nga yor moto wala dara dem dagg assurance. Mm-hmm. donc diir buñ koy dagg lu mën a am wala lu mën a xew si oto bi rek assurance moko moo jël en charge loolu la woon rek so jëndee vignette d'assurance yi so vacciné wu soo ressentir effet secondaire ñu ñoo lay jël en charge te vignette yi c' à 2000 francs donc ñoo ci doon waxtaan nak maire donc ak kilifa yu dëkk au niveau de Grand Yoff ak ñeneen ak ñeneen pour ñu euh, pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax donc c' était juste ça. am na solo léegi bu ñu ñëwaatee ci actualité bi. Mhm. ci temps yi coow li bëri na ay trafic ay trafic de visa. Mhm. ay passeport diplomatique. Mhm. Euh, niki noonu tamit ñu waxaale ci loo xam ne phénomène de société la léegi. ngay wax ak nit mu lay vidéo wala mu lay enregistré te yëgoo ko. pour ëllëg ak si bit mu mën laa dugal wala yu mel noonu. Euh, gis nañ ko récemment ci euh, comme réseaux sociaux yi. koo xam ne da doon wax ak nit koo xam ne xaritam bu yàgg la mu mu vidéo ko loolu yow an yow lan moo ci sa xalaat en tant que jeune leader xam nga bu nii sénégalais lu may wax rek mooy comme que actualité bi c'est au Sénégal du ma wax Afrique Sénégal la yoon sénégalais si boppam dafa am lu mu ñeme loo xam ne man de personnellement dama ko ragal mooy buzz sénégalais si boppam mhm. moo ñeme buzz mhm. c'est-à-dire dinaa ñëw si question bi wax dëgg yàlla mhm. mais dafa am nu ma bëgg a duggee c'est-à-dire que c'était très important pour ma leeral ko tey peut-être que nee neen ma ñu bari dañ ma naan en tant que jeune leader tey danga nga war a yëngu bu baax si réseaux sociaux yi man de bokk bokkuma si jeune leader yoo xam ne dinañ yëngu bu baax si réseaux sociaux yi ndax gëwuma réseaux sociaux même su fekkee tey dañoo ne au vingt et unième siècle lépp c'est digital et que réseaux sociaux lépp loo gis rek am na sens positif am na sens négatif. Mhm. mais man personnellement góoma réseaux sociaux. Mhm. ndax euh, tey mën nga am yenn position yi. Mhm. ñu jëmale sa wax yóbbu ko feneen. et man loolu dama koy éviter bu baax. parce que gëm nañ ne que soo nekkee si yoon. dafa am noo xam ne benn trajectoire boo xam ne moom nga war a mën a jël. tay suñu jëlé suñu ay référence ay Nelson Mandela ay Thomas Sankara ñom seen jamono amul won réseaux sociaux mm. te pourtant dañoo liggéey lo xamné ne ñëpp leen xam mm. ba tay ñun jeune génération bi di mm. leen namo di leen def ay référence di leen suivre donc nit ki war na mëna yegg fo xamné bëgg nga fa yegg sans pour autant jaar réseaux sociaux yi tax réseaux sociaux lu muy def lu muy yàq moo ko li muy defar n'est-ce pas donc euh, moi je pense que nit ñi dañoo war a mën a éviter dañoo war a éviter bu baax ay réseaux sociaux ak yooyu noonu. Mm. léegi nag comme ni ngay wax rek loolu la ñuy wax ne que moom suñu waxtaanu maam yi parce que mm. comme que thème bi moom émission bi religion et société la. Mm. yooyu dafa baax aussi ñu koy indi. suñu waxtaanu ñu maam yi njëkkee maam Abdou Aziz Sy baax macha allah El Hadj Malick Sy. Cheikh Ahmadou Bamba ñooñu waxtaan yooyu noonu. war nañ ko mën a indiwaat daal. waaw parce que nit ki. ngeen di ànd lu yàgg-yàgg parce que gore dafa am solo mm-hmm. nit ki même su fekkee ne da ngeen ànd te li ngay li muy def amul sens mm-hmm. amul solo wax dëgg yàlla wala li muy def baaxul mm-hmm. war nga ko mën a yemale sans pour autant nga koy vidéo ndax vidéo dafa doy waar tey nit même su fekkoon est ce que xaw moon ndax intention bi bu mu koy vidéo ndax génnee ko la woon xaw moon ne ndax da ko doon vidéo rek pour téye ko waaye tey génn na ba am ay problème n'est-ce moo tax nit sooy ànd moom da war a gore n'est-ce pas. Mm-hmm. da nga war a gore ba pare euh, confiance dafa am solo si doomu aadama daal. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ñaari nit yuy ànd dañoo war a mën a am confiance dañoo war a mën a gore gorewante. sàmm kóllëre. n'est-ce pas mais c'est pas bien nit ki. même su fekkee li muy def baaxul muy def dara nga koy vidéo donc acte boobu moom dama koy condamné c'est juste pour te dire que moom léegi. Sénégal kenn mënul wóolu kenn. bañ na ko ba. téléphone yeeg yooyu noonu dafa jël benn ampleur bu extraordinaire mhm. nit ki mën na nekk si benn bërëb sax di def dara mais da ngay ragal sa xel du dal est-ce que filmé wuñu ma wala nga nekk di wax dara ñu naan la est-ce que vidéo wu ma est-ce que kii ma moo tax yooyu yëpp dafa war a nekk loo xam ne war na dañ daal mhm. te man gëm naa ne lu koy dañ loo rek mooy ñuy waxtaan ak jeunesse bi bu baax a baax a mhm. baax a baax indi waxtaan yu njëkk ya donc euh, loolu laa gëm daal am na solo fi nga ci génne ci question boobu noonu euh, muy jamono boo xam ne kenn wóolootul kenn exactement muy tegtale rek loo xam ne benn woykatu arab waxoon na ko muy gaadal wafaau wafaadal xadru wan farajat masaafatul xulfi bayna al qawli wal amal moom la ñuy dund nii nga xam ne kenn wóolatul kenn coow li bëri na beneen bi mooy bu ñu demee ba suñu réew ñoo xam ne ñoom lañ fal pour ñu yoral ñu suñ kàddu ci assemblée nationale ñu leen tudd ci scandale yu mel mhm. ay passeport passeport diplomatique ak yu mel non mhm. ba sax yene dekk yi pour mhm. passeport diplomatique Sénégal Sénégal. day lajat ñu amad visa encore fu mel ni Amérique. Euh, Union européenne aussi doon nañ ko jéem. wa Union européenne aussi doon nañ ko jéem. xamu fan lañ ci mujjé ay député ño xamné ño yor suñu cadeau ci assemblée nationale ñu leen tuddu ci ay trafic de visa ay passeport diplomatique ni ma ko waxee sànq am na dëkk yoo xam ne sax léegi pour Sénégal seen passeport diplomatique jàll fa il faut mu am visa lu mel ni États-Unis euh, Union européenne aussi doon nañ ko jéem donte sottiwul woon bu ñu demee ba wóolootuñ sax suñ passeport diplomatique ak bu njëkk passeport diplomatique fi ñu ko tegoon mhm. ñu dem ba ay dégg ay député ñi ciy def ay trafic ak yu mel noonu euh, di leen dégg aussi ci ay euh, trafic ay faux billets yu mel noonu ku ne gis na vidéo bi nga xam ne génne na ci semaine bi loolu loolu lan moo ci sa xalaat yow. waaw xam nga mu niir mm-hmm. mm, dinaa dugg si point goo xam ne bëgguma si woon sax dugg. Mm-hmm. ndax euh, gis nga duma bëgg sax damay éviter dama koy éviter lu bëri bëri bëri. Mm-hmm. man du bëgg di wax si politique. politicienne bi wax dëgg yàlla. xam nga ni tax ma leen bëgg di tudd. même à travers mes conférences du ma tudd président du ma tudd ministre du ma tudd politique politique politicien du ma tudd dara. Mhm. man génie. yi laay waxal. Mhm. donc n'est-ce pas c'est mon message. Mhm. ndax man lu ma gëm man man nawloo ma leen man personnellement loolu laa gëm. man képp kuy def la politique politicienne nawloo ma la moo tax bëgg di la tudd di la may yenn importance yi. parce que suñu référence Thomas Sankara da doon wax ne que ab jeune war na mën doxal réewam sans pour autant muy xaar président ou autorité ou qui que ce soit donc te ñun si loolu la ñuy roy xam nga tay ñom lu leen di nax moy mhm. il se croit important mhm. te dafa amone ko doon wax ne que mhm. dans la vie le fait d'être important ne suffit pas il faut être utile tay suñu demee man dama bëgg xam rek assemblée nationale ak député yi ban njëriñ la au niveau de notre pays bañ njëriñ leen ñu xawmako tey soo ma boolewoon ak député ci benn confrontation su ma ko posé ay question day wàcc ndax du ma wax bañ njëriñ la député am au niveau de notre pays depuis que assemblée nationale mooy assemblée nationale tey député yi ban taxawaay la ñuy taxaw loo xam ne tey réew mi war na mën a dem kanam à part nekk assemblée nationale di xiiroo di ngaayoo majorité loi bu ñëw nga voté ko parce que tout simplement président bi moo la ko sant di xuloo di xeex loolu duñu ay exemple pour la jeunesse moo tax du ma bëgg di leen tudd. ñu mm-hmm. leen di bàyyi xel. Mm-hmm. n'est-ce pas parce que man booleewuma leen samay mbir. Mm-hmm. tey suñu demee ba ñooñu tey. si ñooñu la ñuy tudd ay trafic de visa. ak ay affaire phobie. te war a xam ne dëkk bi. ñun kenn xamul fu ñu jëm. ñoo xam ne tey ñoom ñoo war a jubal yoon. ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo war a teg si yoon bu baax bi la droiture. tey ñoom ñuy dëng. tey ñoo xam ne tey am neen privilège yoo xam ne man gëm naa ni mérité wuñu ko. parce que tay député dafa am salaire 1 un million deux cent mille xaw million trois cent mille mm. n'est-ce pas mm. te li ngay nek du chaque fois ngay nek assemblée nationale ñu jox la 4-4 go xamné même sa mandat su jeexee ya ko moom ñu jox la yenn privilèges jox la yenn avantages diplomatique ak sa soxna passeport diplomatique ak sa soxna mm-hmm. waaye légui damay laaj mm-hmm. damay lacc lolu si réew bu sérieux réew go xamné néna nee réew mi dafa bëgg a dem mm-hmm. lolu fan lañ ko tek sànq wax nga ko sa biir wax. Mm-hmm. bi ngay wax waxu élection locale yi ne léegi suffrage universel direct la mm-hmm. la ñuy fale. Mm-hmm. loolu la ñu war a def pour les députés. ndax man mën naa ñëw ne dama am sama liste. dugal si ñoo xam ne wax dëgg yàlla samay ñooñ lañu. ñii samay xarit lañu. ñii samay mbokk lañu. pour ñu am. amuñu compétence am com amuñu compétence bi. ma dugal leen si liste bi bés bu ñu ma taggee ma am dix députés n'est-ce ñu fal sama liste ma am dix députés. ma jël ñoo ñu teg leen. te amul amuluñ ma benn njëriñ wala amuñu lu njëriñ bi askan bi mm-hmm. moo tax tamit vote député yi dañ ko war a xoolaat mm-hmm. da nga war a élire au suffrage universel direct mais aussi booy voté kii list bu nekk da ngay gis ñi ci nekk yow mi nga xam ne yaa war a voté mais list bi est ku nekk tamit dëgg la di nga gis tur yi waaw mais est-ce leen xam réellement waaw xamoo leen moom tey Mounir su su su amoon listam nekk tête de xam naa mu Mounir xam naa ne si lii lay yëngu mm-hmm. mais su tegee benn tey genre Aboubacar est-ce que man kooku noonu xam na kan mooy Aboubacar réellement non non n'est-ce pas parce que yow lay wóolu mm-hmm. n'est-ce am na ñoo xam ne dañ lay dugal nit seen liste parce que tout simplement da nga leen bëgg a remercier wala dañ leen bëgg a delloo njukkal ndax mm-hmm. jàppale bi ñu leen jàppale mm-hmm. te amuñu compétence ñaata député ñoo nekk à l'Assemblée nationale France phrase bu correcte en français mënuñu ko wax ñaata député ñoo nekk à l'Assemblée nationale mënuñu bind seen tur ñaata député ñoo nekk à l'Assemblée nationale suñu indee projet de projet de loi lan moo fa nekk mais ñaata député te tey ñoom la ñuy jël jox leen suñu xaalis réew tey lu gën a dee tey ñoom ñooy dagg impôt mille cinq cent francs si koo xam ne il a un salaire de un million deux cent xaw ma un million trois cent mhm. am oto am carburant am crédit téléphonique bu dul jeex par mois jox am la passeport diplomatique tey assemblée nationale soo fa nekkee mën nga yëkkati sa loxo wàccee sa loxo fin du mois ñu jox la sa un million trois cent te si mois bi li nga fay nekk sax du mat benn yoon n'est-ce mhm. ñaata député moo tax cest dire que gis nga tànk yooyu réglé wuñu ko base yooyu ba ba yooyu ñuy xeeb ay député yii ñu leen di falek yooyu noonu mm-hmm. ñuy représenté askan bi ban askan leen représenté député ban rôle la am loo xam ne day développé dëkk kanam mm-hmm. lu dul taxaw kii wax yi kii bañ kii ne d'accord ma et tout ni dóorante après jeex na pourtant gis nañ dëkk yoo xam ne député yi ñoom ñoo mujj wàccee président bi parce que doxalin yoo xam ne baaxul fu mel ni Brésil xam nga parce que def nañ seen rôle moo xam nga tey euh, man j'ai fait te soy le droit soit ñëwee sa première année lu séparation des pouvoirs mhm. c'est-à-dire que si dëkk mhm. tant que séparation des pouvoirs pouvoir législatif pouvoir exécutif pouvoir judiciaire tant que séparation des pouvoirs amul dëkk bi mënul dem gis le pouvoir exécutif à mhm. savoir le président de la république Moi moi am le pouvoir législatif sur les députés parce que le parce que président vous fi au niveau euh, de nos de nos pays là en Afrique président député au niveau de l' nationale. Mm. te ça fait su bëggee dugal benn loi wala loo xam ne da koy arrangé da koy dugal jaarale ko assemblée nationale. Mm. ay ñeneen ñëpp voté ko. Mm. mais réew moom munul dem kanam moo tax si xiiroo ŋaayoo lañ jël. jël suñu as suñu xaalis di passer passer non seulement loolu doyul ñi leen di dagg impôt 1500. non seulement loolu doyul léegi ñoo ngi si ay trafic de faux ñoo ngi si ay trafic de ay ay yu kenn a comme li nga waxoon sa biir wax rek ñoom ñoo représenté peuple bi mhm. mais tey ñoom ñooy dëngal ñoom ñooy ñoom ñooy jibadi mhm. moo tax euh, réew mi daal mhm. dëgg yàlla mu niir man li ma gëm mooy il faut il est temps que les jeunes prennent les choses en main il est temps que jeunes yi yeewu il est temps que ñu jël li ñu moom il est temps que ñu booloo uniru nekk benn pour réew mi mën a dem kanam parce que ñii ma gis du ñii ñooy développer suñu dëkk am na mais ñom ñiñ gis bu féké dañ leen bëgg a affaire bi tok fee né politique politicienne. comme ni nga ko junjee ci sa biir wax. do leen jege parce que nawlo woo leen est-ce que laajul jeunes yi aussi. ñu ñëw ñu dugg ci politique. rien que pour changer façon bi nga xamné mom lañuy la politiquer parce que gis nañ depuis wala avant sa indépendance ba léegi dañoo ragalloo nit ñi bu féké nit ku baax nga mom dañ lay ragalloo walu politique parce que dañ ko dañ ko saltel ba mu salte exactement euh, rien que rek pour nit ñu bax ñu bari bañ cee dugg mhm. léegi est-ce que laaju jeune yi aussi dugg dugg ci politique euh, pour changer façon bi nga xamni mom lañ koy défé pour exactement lool lay wax tout le temps mhm. te nit avant ngay dugg ci politique c'est-à-dire que il faut nga auto formé wu loolu laay wax motax d'où l'importance de notre de notre mouvement international des jeunes panafricanistes bi proposer des fondations sur le leadership sur l'entrepreneuriat sur le civisme parce que da nga am da nga a am background yi da nga mhm. am leadership yi da nga war a am yenn pour mën a dugg la politique la mhm. politique soo si dugg dafa amoon ku doon wax ne mhm. euh, gis nga politique c'est aussi duggee am xaalis sàcc nga parce que politique nekku fi pour rendre le riche mais non non mais da lay jox ay matukaay yoo xam un da nga war a dimbali sa askan mais tey ñu bëri dañuy dugg politique tout simplement parce que dañoo bëgg dañoo bëgg a nekk ay Richard non seulement yor xaalis bu dul jeex parce que mooy gën a mooy yoon bu gën a yomb pour am xaalis non seulement parce que da def ay affaire yu salte yoo xam ne ay affaire yoo xam ne si suuf lay am n'est-ce pas jox la xaalis bu dul jeex te loolu warul mun a nekk politique soo siy dugg da nga siy dugg ak amuwu da nga siy dugg ak gëm-gëm da siy dugg ak benn esprit koo xam ne da nga naan ah man de sama gox ñii dama leen di jàppale ñii dama leen di taxawu mais politique bi comme ni nga waxé rek gars yi salte nañ ko bamu salté ñu ci bari bëggu ñu dugg mais ñun lepp lu ñu wara mëna def parce que politique la politique c'est pas une mauvaise chose non non du du affaire bu bonne mhm. non seulement mais gars dañu dañ see ragal mom wax dëgg yalla nak mhm. luñ fi gis. Mhm. mais ñun lu ñu war a mën a def. dinañ ko def message bu ñu wara mëna véhiculer inshallah allah dinañ ko véhiculer. bu sabee yalla pour génie euh, ñun ñu jël les choses en main ñu dugg ci politique changer format politique bi pour euh, njëriñu askan bi pour njëriñu Sénégal pour njëriñu Afrique incha allah. incha allah jërëjëf euh, Babacar ñu jéxalé rek question bi comme religion et société lañ wax. Mhm. nan nga gisee ndax euh, ci ci biir semaine bi am na xew-xew bu amoon. Mhm. ci diggante autorité yi ak chef religieux yi. Mhm. nga xam nga bàyyi nga ci xelam déet ay inauguration ak yu mel noonu. nan nga gisee relation entre suñu dirigeant politique yi ak suñu autorité religieux yi. waaw xam nga euh, dañoo nekk si réew moo xam ne. Mhm. Euh, tey euh, mën naa wax ne confrérie bi daf fi am doole daal. Mhm. donc te ka tey. Mhm. képp ku bëgg a doon président di nga dem nuyu suñu kilifa diine yi ndax dañoo dañuy jouer rôle bu am solo si réew mi. n'est-ce donc man je pense que. tey relation bi mënul nekk lu dul une relation positive. Mm-hmm. nest relation bu baax rek la war a mën a ne. Mm-hmm. te relation bu baax laa gis. Mm-hmm. nest parce que gis neen ne wax dëgg yàlla autorité yi moom. bàyyi neen xel bu baax a baax a baax kilifa diine yi kilifa aada yi. te je pense que lu am solo la. te allah kulli ali loolu forcément dafa war a am. ndax munoo bëgg dara. am baat ci réew mi. te sans pour autant nga jaar si ñooñu. ndax eh, yàlla leen fi teg mhm. n'est-ce pas nekk soson eh, noo nos guides religieux mhm. ñu nekk ay nit yu sage mhm. des personnes sages laa leen mën a wooyee xam ne du ñu woote lu dul booloo jàmm ak liggéey réew mi te yàlla tax donc àla kulyaal il faut ñu jaar si ñoom moo tax man gisuguma leneen lu dul relation bu positive entre autorité yi ak chef religieux yi moo foora am jërëjëf eh, Aboubacar xam naa li ñu bëgg a wax yëpp xajul ci benn émission ndax ah, bëggoon naa gën a yaatal waxtaan bi ba ñu dugg ci Euh, sous région bi. Mhm. récemment bobu sax question nañ ko aussi. Mhm. coup d'état bu am ñu ko. Mhm. ban gis-gis nga ci tout simplement maa euh, euh, encourager la population guinéenne xam ne dama des amis des frères et des sœurs. n'est-ce pas di leen mastawu bu si le xew récemment seen dëkk. xam nga munir coup d'état en tant que en tant qu'Africain, mhm. panafricaniste, est mhm. d'accord mhm. parce que nit ki sommes la élire au suffrage universel direct non seulement nous, sommes ñuy ñaan nous, aussi au suffrage universel n'est-ce pas mais euh, kenn kenn rafetlu ko wax dëgg yàlla. mais Afrique aussi est-ce que amuñ problème troisième mandat. mais waaw fa doon jëm. Mhm. mais cest dire que dafa am yenn yoo xam ne soo ko gisee da ngay xam ne population bi dafa sës. Mhm. parce que nit ki mënoo ñëw ne man deux mandats lay def. Mhm. ngay forcer troisième mandat. ba pare nekk sa dëkk di def loola loola neex. di tëj ay opposants di rey ay nit. cest dire que population yi moo jug. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nanguwaat lu ñu moom mm-hmm. même su fekkee nangu bi sax mm-hmm. nekkul nangu koo xam ne coché na neen ko mais quand même vraiment temps que ñoom dañoo sonnoon wax dëgg yàlla dañoo tàyyi woon moo tax euh, ñu jëlee ko ci forcing xam nga nit ki moom comme lu olof Njaay di wax rek ku xamul buur saay na ni ne la buur dee nga te suñu naxantee ba sonn pour jëlaat lu moom nga të ne man de du ma leen ko delloo malgré que yéen a ma ko joxoon ils sont obligés jël wax dëgg yàlla kenn cautionné ko mm. mais bon euh, dañoo sosoon daal. jërëjëf question boobu mënuloo ñàkk ñëw comme mm. seen mouvement bi. Mm-hmm. Afrique yëpp lay lay woote. Mm-hmm. Afrique moom boppam Afrique euh, développée. Mm-hmm. Euh, ra kontaan nañ torop ci dalal bi ñu la dalal. di jeexalee rek loo xam ne. xam naa après dinaa ci ñëw gannaaw bu ma la bàyyee nga tàggatoo bu fekkee am na loo xam ne bëggoon nga ko wax te waxoo ko muy sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw euh, jërëjëf Mounir encore une fois. Mhm. si émission bi am solo. Mhm. am na solo lool macha allah. Mhm. di euh, remercier téléspectateur u Safina FM yëpp. Euh, internet yi yeeg ñëpp. donc di wax ne ne que moom comme yu mag ñu baax yi doon wax rek. ab waxtaan soo si nekkee te gisoo si njëriñ waxtaan boobu amul solo. te wax dëgg yàlla gis neen si njëriñ gu baax a baax a baax macha allah. et on l'espère aussi pour ceux qui nous à travers.

danaa la sànni xeeb tuuti mm-hmm. ndax leader gi moom balaa ma dëgg-dëgg moom leader du nekk célibataire <laughs> waaw <laughs> xam naa loolu xeeb boobu dana am ñoo ko séddool. <laughs> waaw waaw loolu moom dina am ko séddool. waaw yàlla yàlla baax na. bu jotee rek yomb. ah su jotee rek yomb incha allah yàlla baax na incha allah. Euh, kon loolu moo nekkoon seen émission religion et société di leen wax ni kon tey la 21 septembre yaakaar naa 22 moo fi ndax 23 septembre di jour bu mag ci ñun. ndax euh, jour madame Diaw la ñu koy souhaité kon joyeux anniversaire euh, donte sax ñëwagul mais ñu jiital ko mënuma ko ñemewuma ko ñàkk wax waaw ñemewuma ko ñàkk wax Khadija Ndour kon ñu ngi lay souhaité joyeux anniversaire euh, suñu xarit la ku baax koo xam ne aussi xamante bi yàgg na ñu lay ñaanal gudd fan nga dem ba fekkee njëriñu njaboot gi yépp ñoom béba taaxa ak ay rakam incha allah kon lii moo nekkoon seen émission ñu leen jox dig daje beneen mardi incha allah